ca ngi ci kaw waaye xel maa nga ca suuf ñoom Sadio Mané ya ca keer war fa football ak ñoom Mohamed Salah la yéene kaay yu bari ñu xëyandool xëy tey ji l'observateur moom xëy ca yamale xëta mu njëkk ba bind ne qualification coupe du monde Qatar 2022 Sénégal ak Égypte tey jii ci la ñuy max aller bi ci Égypte bu 7h30 ci ngoon jotee journal bi nañu max la bopp moo raw revanche waaye ñun ragaluñu loolu ci noonu ay spécialiste ci wàllu football ñoo xamal waa l'observateur ne Aliou Cissé i sóoram bu ñu ci bëggee génn li ñu war a njëkk a def moo di summi mbubum champion d'Afrique tege fële ñàkkante ko ak pharaon yi nag ki l'observateur di journal record ne ñu du yomb ndax waa Égypte fàttewuñu coupe d'Afrique bi leen Sénégal xañoon bu yàggul ca Cameroun lenn rek moo nekk ci seenum weesu na fa mu daan waxee ab équipe bàyyi naa la yàlla Sadio mi ngi taxaw Ismaïla Sarr ak Famara Diédhiou dar ko ngir fu ñu jaar mu tàkk jëppët stade yéene nañu nañu lijjanti obstacle bu keer bi ba noppi fa ñu jaaroon ak ñoom ca keer jaaraat fa ñoom ca keer nañu fexe ba jaaralewaat di yéenekaay bii di Sud Quotidien gaynde Sénégal yi ci Égypte ni mu leen jàppe ba tudde leen ko moo di ay commando yu jëm ci mission léegi ko ne ko moo tax ñu war a dem ca Caire dem ba jeex dóor Égypte ngir dëggal li ñu wane woon ci Coupe d'Afrique bi weesu El Tactico di Aliou Cissé entraîneur bu équipe bi di wax ci journal bi ne moom gaynde gu xiif la jamono ji gaynde geneen di Kalidou Koulibaly dolli ci ne duñu topp Mohamed Salah ak di ko bàyyi xel ba fàtte ñeneen ñi attaque bu Égypte bi yépp ñuy sóor ku dul sóor ëllëg lu la neex mën koo diggee président Macky Sall ak yi Gueye Dany njiital gëm sa bopp taxaw na ci tiiñal ko Bougane nee na Macky Sall heure bu nekk mi ngi dig jeunesse réew mi loo xam ne du ko jëfe mukk moo tax ñu indil ko jokkoo tiiñal Macky ngir contrecarrer jokkoo ak Macky gi Macky Sall xewal fan yi di gëm ak jeune réew mi waa këram yi moom Bougane Gueye Dany di journal La Tribune xëy bind ne ginnaaw opération déglu waa Dakar Bougane teg na jokkoo tiiñal Macky Sall moom mi ñu bëgg a tiiñal ak di ko kaa di président Macky la Vox Populi xëye yéenekaay bi nee nañu bës ni tey ñaar fukki fan ak juróom ci weeru mars boobaak léegi Vox mi ngi koy defal bilan li mu ci njëkk jóge bokk na ci yaama nekk maane la jeex ci diggante opposition bi ak majorité bi ku sa wujju di sëlam doset tax ñi fara ci opposition bi ñu ci bari li ñu jàpp ci fukki ati Macky Sall yi ci boppum réewum Sénégal moo di fukki at yu mu askan wi ñi koy jàppal tànk maanaam yi farandoom moom président Macky Sall ñoo ngi xam ne ci journal bi ne ku xool Sénégal bi fi Macky Sall ñëwagul ak bi Macky Sall ñëwee ak na ci réew mi lu général bu centre des œuvres universitaires bu ndakaaru di kudd maire bu Malicounda di Maguette moo fa nekk nee disparité territoriale yi amoon ci réew mi li ci président Macky Sall liggéey ngir corriger ko kenn xamul nu toll mu ne diwaanu Mbour yegg na tey ci développement foo xam ne li ko ko may moo di vision bu njiit réew mi njiit réew mi di Macky ak hôtel bi mu war a ca Malicounda di hôtel Pointe Sarène maire bu Malicounda di Maguette Sène nee mi xëy dellu si ci opération de démantèlement gi l'armée bu Sénégal doon amal fan yi yépp ca noor bu Sindiaga ca Casamance mi ngi ñuy xamal moom la témoigné ne njiital FIP MFDC di Salif Sadio larme bi da koo jekko ba mu ànd ak jabaram daw wëqet ñu daw dem ci libération Koundou Sarr benn borom kër la bu dëkkoon ca Kédougou amoon juróom-ñaar fukket amoon soxna ak ñeenti doom keroog àllarba ci ngoon lañu ko fekk mu pàndar boppam ci genn garab yéenekaay bii di libération ne ñu xew ci réew mi du jàmm ndax ci njeexteel weeru février ak léegi dégg nañu ci réew mi fukki nit yu fi pàndar seen bopp